bokk mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu danañu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 anta bi ni'mati rabbika bi majnun Euh, léegi nee na léegi nag tiwaawan la ñu ñun kat ñu ngi ubbi jumaa yi waaye ñun ñii tiwaawan la nekk jumaa ji fi nekkoon jumaa ji nga xam ni mooy al al jaami al bu Mawlana Cheikh El Hadj Malick dafa nekk ci chantier al jaami al atiq dafa nekk ci chantier fi mu nekk nii ñëpp xam nañu loolu na ñëpp it xam nañu loolu kenn xam nañu ni jamono jii kenn mënu faa julli waaye waaye nag sutura yàlla am na. sutura si moo di. sutura si moo di. anhu mi ngi fi. ku dégg zawal. ku demal ca jumaa ja julli ji. jumaa ngay wut. jumaa ngoog. jumat jumaa. ñu mën caa julli. neena ñaari jumaa. wala ñett amu fi. lépp lenn la. nee na kon nag bu ajjuma jotee ñi dëkkee Tiwaawan te bëgg a dem jumaa bu ci kenn jaaxle na dem ñëpp julli ji ca juma sëñ Babacar si radiyallahu an nee na juma ji moo jumaa ji ñuy tabax ñoo yem néegu yàlla la te nangu na charte yi nga xam ni jumaa joxe na ko joxe na ko ni nii la jumaa war a mel kon mën nañ fa jullee ji jumaa ku fi jóge nag ku fi jóge nag eh, amee sa xalaatu bopp laa sa xalaatu bopp di wax sa waxu bopp wax sa waxu bopp yaa ko waxal sa bopp waaye ñun tàqale wuñu dara waaye ñun day tàqale wuñu lépp benn lañ ko def tàqale wuñu communiqué yu jiitu nee na am na nag ay communiqué yu jiitu woon yii. waaye bàyyi kowul ci ñun. dañ ko dégg rek dañ ko dégg rek. ci mbedd mi ci mbedd ñu naan nee nañu. ñi di téléphoné. nit ñi di téléphoné. demoon nañu ba kenn wuyootul. demoon nañ sax ba kenn wuyootul kenn téléphone. ndax kenn mënul xam ndax kenn amatul looy wax. waaye. waaye. loola. du woon ñun nag. bii nag. bii nag. mooy bu njaboot gi yëpp. nee na ñépp ñoo ko bokk ñee ñu wuutu leen di seen ndaw raxal leen ko fa tabaarakallaahu ah, jarale ko nag ci sëriñ Babacar Abdoul Aziz mu jotal ko maam Ousmane a ngi nii toog bu suñ maam Habib si radiallahu anhu di sëtu Mawlana Cheikh El Hadj Malick nee na noonu nee na ñëpp it wàccuwaay boobu la ñu am ñëpp ci sëtu ay sëti Maodo lañu nee fa tabaarakallaahu ñu déggandoo ko ñun ñëpp ñaan yàlla nag mbas mii fi ne yàlla na ko fi yàlla jaarale jële ko fi dafa dooroon tuuti ñu di ko xeeb mu yokku mu dem ba mu yàgg wàññeeku tuuti buñ ko xeeb nañ ñaan yàlla